Omar Cissé ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay yow nga bokk ci comité commission scientifique boole association euh, commerçant yeeg industriel yi ci réew bu Sénégal ñu gis ne nag dootul yàggati dara luwaa ba nga xam def nañ ko ngir euh, rek dakkal lépp luy ay mbuus wala sachet plastique euh, ci réew bu Sénégal léegi mu entré en vigueur yow nag ngeen di ay industriel ngeen koy ñaawlu di wax ni tey ji nguur gi daal def leen def li ñuy tuddee forcing ndax mun nga ci ñëw ci luwaa boobu. waaw soxna jërëjëf ñu ngi lay sant di gërëm di nuyu say auditeurs yëpp. waaw am na loi boo xam ne c'est la loi mille 2020 du 8 janvier bu ñu wootee assemblée nationale buy wax ne dafay tere lépp luy mbuus plastique mu ñëw ñu importé ko mu ñëw ci dëkk bi wala ñu defar ko ci fii nii ci Sénégal avant loi boobu am na benn loi bu ko jiitu woon loi 2015 boo xam ne moom dafa waxoon ni mbuus daal buñ ci ëndeetu lu yées 30 microns. depuis CREC mu wax ko ba léegi nag su ko neexee ne dugg ci dëkk bi mbuus bu mu gis mu yées trente micron na ko jël may nañ ko ko. Mm. depuis boobu léegi ci loolu lañ nekk. mbuus yi ñu defar c'est trente trente cinq quarante micron mbuus yi ñu importé pareil donc on est en phase jusqu'à maintenant à la loi de deux mille quinze. ñu benn bis ñu ne deux mille vingt euh, dañuy wàcce benn loi en tout cas vingt avril deux mille vingt day nekk en vigueur léegi nag moom bépp mbuus plastique ak micronage mën a am. tere nañ ko ba ñu waxee loolu nag mu jaaxal ñu ñu demandé audience ci président ci ministre bi ci ministre de l'environnement biñ ñëwee ñetti point la ñu waxoon nañu waxtaanee moom biñ jëlee parole waxal nañ ko ko mais malheureusement benn bi ci lañ yem yegguñ ci ñaari ci def benn bi moo doon bu njëkk bi te répondre na ko mooy loi bi lan la wundu dañoo bëgg a xam exactement yan mbuus ak yan mbuus ñëw dugg ci tere bi ak yan mbuus ak yan mbuus ñëw dugg ci tere les motifs de la loi ni mu yàqee environnement bi ni muy yàqee gàn euh, suuf si ni muy yàqee géej gi jur gi di ko lekk di dee on est en phase avec lui je rappelle que c' important nañ bàyyi xel ne ñun commerçant yi waxuñ ne dañoo contre loi bi ñun ay jullit lañ d' abord wala ay croyant lañ donc lépp luy setal suñu dëkk ña nga ci lu koy tilimal bokkuñ ci luy développé suñu mbay ña nga ci wax lu ko du def bokkuñ ci lu yàq suñ géej gi ña euh, bokkuñ ci

li nga xam ne mooy bépp xeetu muus dootu nekk ci dëkk waaw te li waroon na jiitu jiituwul jàppoon naa ne dañoo waroon na woote. Uh-huh. ñun ñë secteur bi yëpp toog ñu def inventaire xool li fi nekk ci stock. Uh-huh. depuis 2015 ba tey ñaata conteneur moo yegg si au port de Dakar ñaata conteneur moo nekk ci frontière yi. ñu ne kat uh-huh. lii temps la. te te loolu nguur gi defu ko eh, autorité yi ñu loolu. ñi buñ ko defee yëguñu ko en tout cas les vrais acteurs yëguñu ko ñunu toogu ñu wax ñu wala ñu laaj ñu lan ngeen fi yor ci stock. kañ ngeen yaakaar ne ci lay jeex loi bi ñu mën ko arrêté de ñu mën a arrêté euh, sachet plastique de bon loolu amul est-ce que en trois mois soxna si jàpp nga ne lu ëpp cent conteneurs yu nekk ci frontière yi nekk port de Dakar ak yoo xam ne ñu ngi ñëw def nañ commande mu nekk si yoon bi ñëw ndax loolu jàpp nga ne en mën nañ ko mën nañ ko boobu ngeen def tamit monsieur Cissé bëggoon naa ngeen ñëw ci parce que wax nañ ko sànq ci nasaraan nee nañ depuis 2015 bien vrai que nag am na précision bu ci am ci micro wàllu micronage yi mais depuis 2015 nguur gi mi ngi wax lu jëm ci sachet plastique yi te terewul boobu ba tey yéen a ngi def i commande ah waaw mais lan la lan la 2000 loi 2015 lan la wax la wax lan la wax ñëw ci loi 2015 bi daf ne dañoo tere ñuy fabriquer wala ñuy importer bépp sachet plastique boo xam ne dafa yées quarante microns trente microns. mais sa ça reste des sachets plastiques ah. pardon. ma ne ba tey ay sachet plastique ay mbuus la la la nguur gi di bañ. ba tey waaw non mais waxul ne comme ni 2020 bi waxee ne dañoo tere sachet plastique de toutes sortes waxul loolu. Hmm. daf ne dañoo tere defar ak importer sachet plastique buy yées trente microns. Hmm. loolu kay c'est clair. Hmm. suñu waxee bu ko ëpp te loolu moo fi nekk ba léegi. te bu ko ëpp bi ngeen moom ngeen di importer. mais ñun ñu ngi ci trente trente cinq quarante micro. fu mu fekkee bu looy lu yëf loolu na ko jël <coughs> donc kii amul problème. Mm-hmm. léegi nag li nga xam ne moom moo waroon am mooy li ma wax def inventaire boobu tey maa ngi lay wax na leen en valeur marchande rek li nekk ci muus ci frontière yeeg Dakar ci ay conteneurs mat na cent milliards sept cent entreprises di ci liggéey. yoo xam ne ay industrie la yoo xam ne de fabrication de sachet plastique trente mille emplois indirects dix mille emplois directs en trois mois loolu mën nañu xëy sànni ko jigéen dafa war a am boo xam ne mu la jël rawatina nag ba nga xamante ni lii politique la boo xam ne mondial la du sax Sénégal rek uh-huh. ah uh-huh. ñu ngi visé deux mille vingt cinq deux mille trente ba deux mille quarante pourquoi ñun au Sénégal ñu bëgg en trois mois ñu ne nañ fi jëlee loolu yëpp ci koo xam ne yaa ko waroon a jox liggéey dafa mooy wutal ay ndawam ndaw lu jógee Saalum jógee Bawol jógee Kajoor jógee fu nekk bi muy wàcc fi fukki junne la am muy góorgóorlu ba mën a indi ay ay ay conteneur lu di góorgóorlu ba mën a uti ubbi industrie moom employé boppam employé ay yeneen yu bëri dégg nga lim bi mu la wax sànq. Hmm. waaw dafa too ko jàppale too ko nu muy gën a avancé nu muy demee même bu fekkee dafay changé liggéey nga accompagné ko mu jógee ci lu dem ci leneen defoo ko nga ne ko da ngay arrêté tey tey tey tey tey loolu yëpp nga jël ko nga sànni. te li doy waar mooy. Mm-hmm. am na conteneur yoo xam ne y' a deux mois ñu ci con ñu ci port bi xanaa la xanaa xanaa la loi n'est pas rétroactive 2020 bi xanaa la loi n'est rétroactive lu tax boobu ba léegi joxewul def nañ formalité yëpp ah, pour conteneur yi génn mais nanguwul joxe autorisation pour ñu génne ko droit loolu rek la ñu laaj actuellement xanaa loolu sax su génn nga mën a am espérance jéem ko sax jaay le temps le vingt di jot mais loolu yëpp kon est-ce lu xew la. kon tey tey jii yéen fan ngeen jàpp ni fa la yëfi suuxee problème bi c'est à quel niveau d'après vous. waaw mais le problème c'est au niveau gouvernement gouvernement la ñuy wax parce que c'est le gouvernement c'est le gouvernement ñun on indexe personne suñu affaire bi gouvernement gouvernement la moo ko décidé mais dama jàpp ne gouverner c'est prévoir dama jàpp ne gouverner waxtaan la discussion la bañ nañ ko ñu ngi woote dialogue national lu ko waxal xam nga dafa am contradiction xam nga les vrais dialogue duñ ko def. bala ngaa woote dialogue national da ngay woote dialogue sectoriel ba pare moo gën a jekk mhm. yéen tey seen i kilifa euh, di euh, Abdou Karim Sall euh, naka la seen relation mel ndax moom ba muy ñu fàttali bañ ko fi fale yàggul wante moom nag neen dafa bëgg a ñëw relever défi bi ne rek loi bi par A ou par B dina jàll donc tey seeni waxtaan ak moom lan la. waaw suñu waxtaan daal mooy comme li ma la waxoon bi ñu ko rencontré leeral nañu loi bi wax nañ ko ne ñun on est phase avec la loi léegi nag inquiétude yi am wax naa la ko mooy li ciy liggéey al ji ci nekk ñu bëgg ko sànni en trois mois mënta nekk ñetteel bi dañ ko tegal ay proposition dañ ko ne ñun jàpp nañ ne li ngay xeex mën naa am te doo léegi benn commerçant ci naka mooy nañ jël plastique yi ñu xool ñu ko recycler ne serait-ce que sax nga yokk ci benn ta bu ndaw yi ñu koy prélever ci ñoom. pour le ramassage du du du du plastique loolu bu amee dana créer sax ay emploi ndax bu boobaa dana am lu ci liggéey ñetteel ba dana créer valeur ajoutée <coughs> dana mën a dugal dara sax ci <coughs> PIB bi ci ci ci économie nationale bi dootoo gis mbuus buy polluer atmosphère wala environnement bi waaye dana créer sax ay emploi te ñuy liggéey dinañ liggéey su boobaa micronage bi nga bëgg nga ne bii laa bëgg bu boobaa na ku def lu yées micronage boobu wala façon mbuus bi nga bëgg biodégradable wala yu mel noonu ku ko deful mais su boobaa yoon dal ci kawam ñu d'accord nañ ci loolu. Mm-hmm. mais nag tànk du tàllal du banque loolu la mënta comprendre donc amul mesure d'accompagnement dégluwuñ la ci say proposition li ñu bëgg daal loi bi jàll jàll doo xam lan la. moom après proposition bi lan la wax après proposition moom Abdou Karim Sall lan la wax. en tout cas sa réponse a été toujours lan en tout cas loi bi dana jàll dama jàpp nag loi yi defaruñ ko. pour euh, nit ñi defuñu leen pour loi yi loi yi dañu ko defar pour nit ñi. Mm-hmm. les lois sont faites pour les hommes mais les hommes ne sont pas faits pour les lois. Mm-hmm. loi ci ay nit lay appliqué wu. te jàpp naa ne du ñëw bi yàqal nit dafay ñëw di ko defaral di ko defaral environnement am waaye su fekkee nii ñu ko bëgg a defee la loi bi dafay yàq wax naa sànq naa ci insisté bu ñu jaxase ak askan bi jàpp ne ñun dañoo bëgg rek suñuy intérêt bàyyi intérêt nation bi nañ bàyyi dëkk bi lu bëri da nga ñu koy wax xamuñu lu ñun duñu dox ci mukk lu yàq réew mi jamais. Hmm. d'ailleurs ñu dañoo bokk ci ñu defar réew mi ah. soixante quinze pour cent de la population ci secteur informel la nekk dans lequel wax la li ñuy contribuer ci euh, économie bi kenn contribuer waaw loolu yëpp ñu ko ko ko euh, dans l'eau hmm. soxna si dafa xaw doy waar hmm. moo tax li may wax mooy nañu toog ñu waxtaan loi bi mën naa jàll kenn du gaañu waaye wax dëgg yàlla su fekk lu waaye mën naa jaar ci kenn du gaañu tey ñu ko def te mën na nekk waaw même bu fekkoon tey dafa wax sax wax ne dafay jàll kut ko kut mais ñun defuñu dara ñu ngi ci loi 2015 bi dérogé wuñu à la loi de 2015 kon nañu wax ne kat comme léegi ñun ñoo leen mooy ngeen di liggéey ci loi bii 2015 xëy dañ xëy bu ko changé kaay leen wax lu ngeen ci defoon ñu delloo leen ko te bàyyi ko dem defi leneen ñu dee dommage wala dafa am ñaari sénégalais yaakaar naa BRT fi mu jaar autoroute à péage fi mu jaar juróom yëpp kër yi jaar yëpp dañ leen déguerpir mais dañoo dee hommage seen kii yow nga ne waa doo ko dee hommage loi bi dana jàll doo ko accompagne pour mën a def euh, jógee daal da ngay appliquer rigueur euh, loi bi dans sa rigueur mm-hmm. tey tey monsieur Cissé bu fekkee seetluñ def dañ ko laaj léegi donc suñu bagage yi ñu def mu ngeen seetlu ngeen ko def ngeen seet yéen dëkk yi ko ngeen jaayi ko mm-hmm. loolu wax Euh, tey euh, bu fekkee loi bi jàll na fii leeg le vent psychologiquement ndax vous vous êtes préparé ak ndax préparé ngeen askan wi euh, ci naka ngeen di def ak yenn alternative ngeen di utiliser. waaw askan bi la ñu njëkk a interpellé pour wax leen na leen. Hmm. ñun doomu askan wi la duñu ay burkinabé duñu ay étranger ay sénégalais leen bon tey dëkk ci dëkk bi. jaayuñu dorog ñu lu ñuy tere ba fi may wax yow jaayuñu lu ñuy tere ñu ngi ci loi deux mille quinze loi loi deux mille vingt bi dañ ne waxuñ na du jàll waaye na jàll ci li nga xamante ni ne du gaañ kenn état mën naa am li bëgg seetal dëkk bi te ñun ñëpp ànd nañ te du tere commerçant yi kenn du leen leese waaye imaginer koo xam ne dix ans quinze ans pendant mu ngi liggéey ci benn bi jël këram tayle jël ay deen joxe ci banque bi pour liggéey en trois mois nga loolu yëpp dafa war a tomber à ñu ngi interpeller askan wi na leen lii du problème mu commerçant kese problème askan wi yëpp la képp kuy borom kàddu nag di borom ndomb ñu